asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 3 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi mu mel ne ki nag tey yëglikaay yi sunu làmb lay doon ak fi nga xam ne moo di Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la nag xëtam mu njëkk tey Siteu lañ ca fekk Siteu nag mu nga yëkkati ay loxoom sol ay gaawam Siteu nag di leeral ci ay mbir yoo xam ne daal wax nañ ko ko maanaam daal lu jëm ci doxum ko kombaam de ki nga xam ne moo di Papa Sow Siteu moom jàpp na ne loolu amul fenn kenn waxu ko waxi Papa Sow wax na ko ci sunu làmb waaye wax ca Leewtoo TV nee moom daal fi mu nekk nii moo xam Garga la wala muy Papa Sow moom nee na doxuñu ci combat ak kenn ñu ne ko fi mu nekk nii nag li leer ba leer daal sa digganteeg ki nga xam ne moo di Papa seet na li ma leen wax xanaa déggu ngeen ko maag Papa Sow nit waxuma ko te bu dee Max Mbargane la tamit les ko wax daf ma koy wax loola mu ngi koy wax fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV mu ngay xam ne ne daal waxuñu ko ko tey suba waxi noppi moom li ko intéressé daal mooy combat combat bi nga xam ne nii day mooy MMA bi nga xam ne ca la jëm war koo jongante ji fi nga xam ne mooy ca États-Unis loolu mooy li nga xam ne moo di waxi Siteu nee na nag mas na faa jongante ba mu ca jongante itam amoon na ndam dafa dóoroon ka nga xam ne mooy kam ko séqaloon mu daanu daal ko kawate moo tax tey ñu ko beneen combat boo xam ne moom la fas yéenee jongante bi ni sunu làmb xëy tamit wax ñu lu mel ni ki noonu couronne roi des arènes bi ci Modou Lo nag mu jàpp mooy Modou Lo moom li mu am lu mu mérito la te liggéeyam moo ko ko may ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye bu ñëwaatee ba tey ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb tamit jàppal kii nga xam ne nii day moom moo di Modou Lo ba nga xam ne moo yor roi des arènes ba nag yëglekaay bi wan nañu ko di ñu xamal ni Modou lan lay làq wala lan moo nëbbutu ci lii nga xam ne moom lay def mu di am sa yëglekaay bi daal loolu la xëy di laaj ndax nag bu bañee ne du bëre kii nga xam ne moo di Tapha Tine wala Ama Baldé wala Lac de Guiers numéro 2 wala Balla Gaye kon Modou xanaa boog daam lu muy nëbbu wala boog mu bëgg a su gaa yi jaar leen sax dem ca kaw def leen lim leen def ba pare doog a nangu yëglekaay bi xëy ñëw di def boobu sunu làmb wax nañu ko muy diggante kii nga xam ne moo di Ramdan ak Fallou njaay ci un million yoo xam ne doxoon na seen diggante te Ramdan yoroloon ko ko mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii yëglikaay bi ne na Ramdan nag fay na bor ba loolu daal mooy yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb tamit ñëw na xamal ñu lu mel ni kii noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom seen i mbir boo bëggee dégg nag saison bii de tane na par rapport ak saison bële la ñu génne woon mooy waa écrit wàllu 23 combats la ñu am am ca 14 victoire ak 9 défaites yëglikaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax mu mel ni ki nag maanaam daal ak yokkute am na ci ñoom par rapport ak fa ñu génnewoon ci saison bi nga xam ne moo passé Lac de Guiers numéro 2 moom loo ci mën a dégg ñëw na gagné combat am waaye ñi nga xam ne nag moom yaakaar gu tas la ñu andil écrit wàllu mooy Papa Boy Djiné ak Alioune Sèye Junior sunu làmb moo xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye ñi nga xam ne tamit ay liet naa Lac de Guiers leen jàppe moom te gisuñu leen ñu bëri mooy Alioune Sèye numéro 2 ak ki nga xam ne moo di Abdou Diouf waaye ñeneen ñoo xam a baax ñaari combat ñaari ndam mooy dofu jaas ak Macha Pereira mu mel ni ki ñoom ku ci ne ñaari combat ya nga ya nga jongante moom gagné nga ko lu mu maa moom saison saison dafa mitisé maanaam daal saison ba saful suukar saful xorom ñaari combat la bëre moom lu mu maa daal di daan benn ba ñu daan ko benn ba waaye beneen xale boo xam ne mu ngi ci écurie Waalo ñu war ko bàyyi xel mooy ñaabu ndaw yëgli kaay bi ne moom day xale la boo xam ne ni day mu ngi yéeg jëm ca kaw a kaw a kaw buñ ko encadré day te bàyyi ko xel naa doon ëllëg dara ba tey mu nga nekk nga xam ne moo di écurie Waalo moom di Arouna Sall moom daa mel ni bilan booba na mu demee moom dese na ko neex mu ngi koy wax fii nga xam ne mooy ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb waaye bu nu demee ba tey keneen koo xam ne moom bilan la ñu def ci wàllum lamb bi simple ji mooy Ibou Senghor numéro 2 mu mel ni ki nag juróom-ñetti final daal la finaalu gagné ñeent ya ñàkk ñeent ya yëglikaay bi nee na nag lim ci jot am ci ab xaalis toll na ci 2 millions 800 sunu lamb xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci tamit ci division yi muy def rek maanaam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 maa lay fay Ndeye Coumba Fall ah, di nuyu internet yi suivre Leewtoo TV yëpp fu ñu mën nekk si àddina bi di leen ziar di leen baalu àqati leen baal di leen ñaanal jàmm te di ko saaxu si ñoom. ok Babacar nag ñu ñëw si Siteu Siteu bi mu ñibbisee ba léegi nag toogul mi ngi def promotion combat MMA bi nga xam ne moom lay waajal sekk naag waxtaan bu yaatu ak sunu mbokku journaliste yooyu waa sunu lamb nee na nag euh, moom kenn bu benn promoteur doxul combat ak Papa si biir interview aussi nee na moom xam na valeur xam na bu baax li muy jar maanaam wax na daal lu lu daal si si si si ak sunu mbokku journaliste yooyu di waa sunu lamb waaw Siteu day jóge na États-Unis ñëw Sénégal keroog defe naa waaw man demoon naa fa gis nañ ko ci suñu lamb mu wax gis ko ci Leewtoo TV mu wax gis ko ci Lutte TV mu wax yaa ngi dégg diggante ma Papa Sow li mu wax ne na kenn doxu ko promoteur waxu ko ko yaa ngi dégg yegg naa ak moom sax man ci sama question ne ko Max Mbargane est-ce que sama naa mu ne moom lu mu yëg ku ma yëg ko te waxuñu ko dara moom ne na combat MMA moom la tal yaa ngi dégg ci côté euh, xaalis bi tamit wax na ne daal moom fi mu nekk nii day liggéey yaa ngi dégg ku ko bëgg a tëgg di nga ko fay lu ko jar ma ne loolu am na mais li am solo ba am solo daal foofu fi mu nekk nii moom ah xaw ma wax man li ma mën a jàpp te muy dëgg moom promoteur bi nga xam ne nii nag mooy Fallou Ndiaye bi bëggoon combat bi moom wax na ak staff Siteu ndax Fallou Ndiaye man xamuma ko si ñaari wax te moom moo ma wax loolu yaa ngi dégg dox na combat bi ci diggante Siteu ak Papa Sow wax ak ñaari camp yëpp

roi des wax na dëgg mérité na ko ndax mérite mënta passé nga nekk xale dugg ci benn affaire di ci yëngutu wane ci fulla fayda ak jom kon dama ne teraanga bu la ci tab rek pour man mérité nga ko kon loolu mu wax it lu na couronne roi des arènes yàlla def na itam ñàkkante na ba jot ci kon du ñu mën a def lu félicité moom mootloo ci couronne boobu mu yore waaye tamit di wax si dana loolu mu wax tamit lu ama am la parce tamit ñoom ñëpp tey ku ci nekk rek pour man moo xam roi des moo xam ne beneen trophée loo am yaakaar naa mérité nga ko ndax it ñu ngi def li leen làmb ba ku ci ne yaa ngi entraîné di ànd ak say mbokk di jëm di jongante ji loolu nag fekk yaa ngi koy def rek te fulaal la ngay def pour man lu la si fekk rek loo mérito la loo war a am la. journal aussi ñëwaat na si euh, Modou Lo Modou Lo nee nañu Modou Lo lan lay préparé ndax nee na du bëreeg Ama Baldé du bëreeg Balla Gaye du bëreeg Tapha Tine Euh, donc nee nañu daal lan la Modou Lo di préparé est-ce que nekkul benn stratégie boo xam ne moom lay waajal pour saison prochaine. maanaam ndax amul lu muy làq ndax bu ne du bëreeg Tapha Tine du bëreeg Ama te du bëreeg Lac de Guiers de hmm. waaw loolu moom dama naan làmb comme li ñuy wax rek suñu papa mag suñu koy nuyu di ko jaar damay faral di jël ci moom exemple ndax ay waxam daa am solo dañuy làmb buñ la seen too fet nga fetal buñ la seen too fetal xëy na loolu tamit loolu la Modou Lo def parce que Modou Lo tamit tey nekkatul koo xam ne ci wala mu ci di moog staff bi mu àndal xam nañ bu baax a baax fi ñu jëm xëy na nag du ñu xëy xëy ni ci diw mi lañ jëm wala ci diw mi mais dina ñu bëre moom ak lu mënta xew ñu bëre xamuñu nag ndax saison bi benn combat lañ ciy bëre wala kañ lañ ciy bëre mais lu mën a am dana ñu bëre te ñooñu ñu fi wax ay adversaire am lañu moog Lac de Guiers a bëri nañu ñaar bëri na Gris ñaar bëri Eumeu ñaar bëri Balla ñaar kon tey nit ñi li ñu souhaité mooy mu bëre combat bu bees moo xam Tapha Tine la wala Ama Baldé parce que loolu moo ëpp ci li nit ñi di wax ndax sénégalais yi kenn gënu leen a xam làmb non non non ñoom combat bu ñu faral di waxtaane rek jàppal ne loolu ñor na kon diggante Modou ak war na mën a am lu lay doon te dina gën a am lu mu indiwaat ci lam digganteem ak Tapha Tine lu war a am la dina am lu mu indiwaat ci lam ndax ñaari mbër yooyu yëpp mu ñu leen tudd tey di tudd Modou Lo ku ci ne li tax mooy dafa am loo wane parce que Tapha Tine bu ñu en arrière tuuti ci ginnaaw defe naa dafa teglante benn euh, ay at yoo xam ne nii di wane boppam ci ab Abdou Diouf ñëw ba ci Bombardier xam nga ñëw ci Elton ñëw ci Bombardier doog faa jóge Balla gay daan ko ba mu jógee ci loolu defe naa ci lañ ko dugal ci tournoi TNT mu ñëw bëre faak ki nga xam ne mooy euh, guy gi premier combat am ci TNT gagné ko Ama Baldé gagné ko deuxième combat mais tere wul mu continuer ñëw gagné Zos ci troisième combat TNT bi jóge fa ñëw jëlaat Yékini Junior gagné waat ko kon xam nga ko lancé bu mu nekk pour man lancé bu baax la Ama Baldé nag gis nga bu mu jógee ci defe naa ci def dama guy gi tracé la def ñoom Malick ñaa ama neex yaa ngi dégg na di ran rangale di ñëw di ñëw di ñëw TNT ba mu dugg ci daan Tapha Tine Zoss amaat ndam ci guy gi ba ñëw tey daan Papa Sow kon yaakaar na moom itam fi mu nekk nii daal ñaari mbër yooyu fi mu nekk nii man wax dëgg yàlla ku ci moo Modou jël xalaat naa dina neex lamb yu neex a neex a neex ndax combat jànq lay doon. baraka loolu am na solo la euh, sunu lamb dañoo commencé seen bilan yi bilan écurie yi dem euh, doo doraat la tey nag mi ngi ñëw écurie Waalo nee ñu écurie Waalo bi nga xam ne chef de file moom mooy Lac de Guiers numéro 2. def nañu 23 combats 14 victoires contre 9 9 euh, défaites nañ daal bilan bu baax la par rapport ak lu ñu jógee daaw. waaw waaw tane na de parce que itam loolu boo xoolee lu lu lu lu kii la quoi lu ñu mën a jàpp la. parce que victoire ak 9 défaite vraiment am na benn progression bu ñu def ñu maigri wàllu par rapport ak daaw ni seen saison demee loolu tamit dañ leen ciy félicité mais di ñoo yor écrit bi Ron bi nga xam mooy seen entraîneur ak ñoom ay Mbaye wàllu daal mais tamit du ñu suñu waay Lirou Diane nga xam ne moom waaw moom suñu waay la eh, di leen félicité jaar mu mel ne Alioune Seye numéro 2 ak Abdou Diouf parce que ñun tamit dañu bokk ci làmb te ay mbër yu mag lañu waaye nag comme li olof yi wax rek bu yoon jeexul waaw su lu jeex comme liggéey nañu loolu ah xëy na déwén ñu gën a progresser am na fa ay xale yu fa xeeñ feeñ tamit ku mel ni ñaabu ndaw xale bu ñu war a bàyyi xel la Mathia Pereira ak yeneen xale yoo xam ne ñu ngi si écrit bi euh, kon daal félicitation écrit wàllu ci euh, yokkute boobu nga xam ne am na si seen làmb. journal bi aussi mu ngi xamal ni Ramdan bi nga xam ne dafa yoroon 1 million euh, Fallou Ndiaye ndax dafa jëloon avance su Fallou si la profité dem États-Unis boobu ba léegi nag mën na presque at nee nañu journal mi ni xamal ni que delloo na xaalis boobu nga xam ni. Euh, Fallou Ndiaye yore woon na ko Fallou Ndiaye Babacar. waaw loolu dafay muy geste bu rafet. waaw loolu moom dañ naan alhamdulilah parce que tamit yaakaar naa ne euh, nit ki bu la joxee avance pour nga bëreel ko ah te bëreelatoo ko nga dem États-Unis defe naa bu ñu ne nga ko ko yoon nangu na lool te xel nangu na ko itam parce que euh, bu fekkente ne loo xam ne la mayu la ko vraiment la nga war a def mooy nga fay ko ko kon nag. Mm, sant yàlla ci bi mu ko ko fayee waaye moom it na sant yàlla ci bi ko yàlla mayee lu mu fayee waaw parce que itam ñoom ñoo seq làmb ji muy Fallou Ndiaye ak Ramdan ak yeneen mbër yëpp ñoom ñëpp ñoo a tamit di ko si dugal bi nga xam ne moom moo ko joxoon xaalis boobu. Babacar jugeen nag si sunu làmb dem nag si Leewtoo point dañu amoon waxtaan bu yaatu ak euh, Bombardier Bombardier Serigne Ndiaye Bombardier bu bu nekk Mbour mu ngi waxtaan boo xam ne nee na daal euh, VIP yi. il faut que ñu jël nag jox xale yi chance pour ñu mun a bëre ndax su dul loolu kon du baax parce que nee na euh, VIP yi noo mun a jox chance pour xale yi mun a egg fi nga xam ne ñoom eggoon nañ fa waxtaan na fi aussi wax na tamit si MMA waxtaan na daal lu bëre si ak waa Leewtoo point net Babacar. ñu koy nuyu di ko siyaar Bombardier ah, depuis Mbour di nuyu waa Mbour yëpp rawatina ko mel ni Bazoka di doomu mbuur nekk fële ca États-Unis tam rek maa bu baax a baax waaw loolu mu wax am na solo te defe naa noonu la war a demee bi ko tafaagee di jël yaakaar naa da ko mayoon sens bi muy bëri ak Tyson su ma jumul Tyson da ko mayoon sens yaa ngi dégg kon loolu tey ñoom bu ñu ba toll foofu loolu mu wax lu xel nangu la war nañu mën a may xale yi sens parce que tey Bombardier war na maye tey sens fi nekk nii maye sens mooy wax nañ diggante ak Ama Balde loolu war na mën a nekk. loolu tamit wax na si ne Ama Balde Boy Niang ñoom ñëpp. voilà muy Boy Niang muy Ama Balde. ñoom Yékini Senior ñoom Sa Thiès xam nga bëri nañu ñoo ñëpp ñu ngi fi di ay mbër ay ñoom Modou Anta bëri nañu ay champion yoo xam ne tey waaw du bëri Modou Anta mais exemple la pour maye chance quoi pour mu yaatu mm. xam nga du moom rek a war a a maye chance bëri nañu xam naa du bëri Modou Anta ndax am nañ relation bu rafet rafet yal na leen ko yàlla sàmm mais maanaam pour wan la nekk rek ñi ñu war a may chance ci làmb dafa bëri ndax itam tey dama la limbal ñoom du booy nag ama rek déedéet rëg-rëg mu ngi fi mbëri dañ ko war a jël bari ak moom Sa donte am na defet dañ ko war a jël bari ak moom Malick Niang mu ngi nii taxaw di somi yooyu il faut que ñoom ñu nangoo dugg jël booy yooyu tàllal leen loxo ise mais liñ du li nga xam ne nii daal pour man mooy dëgëral affaire yi mooy affaire bu bëggee di tourner ci diggante Gris Bordeaux Modou Lo Eumeu Sène Bombardier Lac de Guiers ak Balla Gaye pour man warul mën a demee noonu ñoom Sa Thiès ñii am na lu ñu wane si làmb ñoom Boy ñan ñoom Ama ñoom Yékini Junior bëri nañu bëri nañu ay ñoom Papa Sow il yi gën a jaxasoo ñu bëri daal waaw. Babacar si kàddu yooyu ñu leen di tàggoo di leen jox di daje suba incha mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Meso depuis Mauritanie nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Tadi Gueye di nuyu sama doom yooyu euh, Mame Diarra Penda euh, bébé Fallou di nuyu aussi Rokhaya di nuyu seen yaay euh, Khadija Diallo naan ko yal yàlla fëgg boobu bi nga jóg si jàmm ak salaam chéri Astandine depuis Italie DG wu Brahma comme que yóbbante nag àkk la Astandine nee na Babacar sa loowu Brahma la ko jox incha allah. Baraamaan <laughs> waaw. Baraamaan du ginaar la. benn marque yële la Babacar. ah marque yi ah non Baraamaan dama xamul Baraamaan ni ginaar te xam nga. tam comme nga ne kooku sportif ak loolu noonu. Ah, ah, ok waaw na ñëw na ñëw <laughs> et puis war na mën ñëw sax téel lii nga xam ne moom mooy euh, revue de l'arène bi Baraamaan boobu. waaw kon astandi <laughs> astandine la. ñu koy nuyu di ko ziar Italie di nuyu waa Italie yëpp sama gars yi ne foofu ñoom Dongo Fall ñoom faat Fatma xam nga. ay ñoom gars yi Benzema dem ñoom tamit ñu nuyu ñëpp ah di nuyu mais di nuyu tamit ki nga xam ne mooy sëñ daam John ca parcelle maa ngi koy nuyu bu baax a baax unité 19 borom lambay maa ngi lay bëggee mais may ba ma ko fàtte borom bagage yu rafet yi macha allah bi muy jaay baax ci jigéen lool may maa ngi koy bëggee di nuyu papa père ba mais di ñi nga xam ne ñu ñoom tuuti yaay bu baax a baax di nuyu tamit xariroos Ndiaye soppe Aziz Ndiaye Al moom ku bëgg Aziz la ndeysaan nee na da koy bëggee bu baax a baax di nuyu tamit Aziz Baye mais di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV xam nga ba Dione marché ti leen sama grand sama référence di doomu bool dëkk Réfane di ko nuyu Seri Nabou maa ngi koy nuyu bu baax a baax ca marché ti leen ak doomam Seydou Ndour du nuyu ñëpp mais tamit du nuyu sama caméraman yu ñaawul yii yàgg maar <laughs> doomu ndeyu yu dafa déchiré ca Paris waaw tey moom déchiré la ma dox ak ay tërënikam du mën a ñaat mais tamit di nuyu Moussa mii. <laughs> Ah, ah. naan ko daal ak jàmm Moussa faal Fall yaaram waa moom mooy loolu faali nii waaw macha allah musa bëgg nañ ne di la wax nga daal jàmm mais tamit di nuyu ki nga xam ne nii mooy bëgg fàllu ca ñaari tali di soppi sëñ Abdou Karim Mbàkke di profité di tàllaat loxo bi sëñ Abdou Karim yëpp di ko tàll kilifa diine yëpp rawatina sëñ Mbaye Sy Mansour tamit ñu koy ziar baax a baax moom dañ koo sopp te yàlla tax mi du nuyu ñëpp dafaa ñu doomu ndoy Wally Seck ca maris bëgg naa ko ak Mbaye Sy Ndiaye ak Baye Demba Ndiir ñooñ samay soppe lañu ñoo bëgg Babacar moo tax te ku la bëgg nga bëgg ko ndey kum